Allah saaxiba samaha walfadila alcheikh seydi mohamadil bachir asxaaba samahati walfadilati wa siyaada ayuha alxuduru alkarim nuxayikum bi taxiyatin tayibatin mubaraka qaa'ilina lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu ngi yëkkati kàddu nuyoo kàddu euh, tatagal waaye kàddu jokk jokk mbokk di ci wuutu nag sunu wayjur suñu baay Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadunil Mansour la tàmbalee ci moom ba ci ay rakkam Sëriñ Seydil Hadji si Sy Maodo Sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz wàcc ba ci seeni doom njabootu Seydil Hadji Malick yëpp rawatina njabootu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mi nga xam ni tey ci ndigalu xalifaam taawam Serigne Babacar ak jëwrinam ba fa nekk di Serigne Moustapha noonu yebal ñu ngi lay nuyu Serigne Bachir Abdoul Qadir di la jotal nuyoo xadara bu tedd ba ca Tiwaawan yëpp di. jotal yoo sa doom yu baax yooyu di Serigne Babacar ak Serigne Moustapha ñoom ñi nu yabal man ak sama mbokk yu baax yi ma sëriñ Serigne Xasan si di suñu doomu baay di doomu baay alxaaji si aminta yal na yàlla yokk leeram ak suñu jaam bi waaye di sunu doomu baay ba tey di jarbaat ci sëriñ Abdoul Aziz di alxaaji Mor Mbay ah ñëw na nu daan ñëwee ku ne xam na ni jamono xat na waaye li nu indi woon rek mooy mu ñëw nga gis nu nu gis la nga xam ni sëriñ Abdoul Aziz la mu waxoon la mu yéene woon la mu digle woon tabaarakallaahu njabootam gu tedd gi mu bàyyi loola lañuy ñuy di ko wéyal ba tey jii sëriñ Moustapha boole noog délégation bi ci ndigalu sëriñ Babacar nu ñëw ah bokk ak yow sa bis bii bokk ak yow sa bisu wayjur wii ndax moom moo daan wax ni ñett kenn du ko xeebal nit nit kenn du ko xeebal bisam rawatina nag moom Serigne bi mu xamoon ni lii bësam la mu daan nu ci yabal yàlla boole leen waaw ci façon boo xam ni néew na euh, nu gis ko ku yàlla boole noonu ak tabaarakallaahu ku mu bokkal lépp mu mel ni ñëw nañu fi waaye ñëw nañu ci suñu kër ñëw nañu ci sunu ëtt ah tabaarakallaahu nanu daan fekkee njaboot gi it noonu lañ leen fekkee kon yal na sax yal na yàgg kàddu gi daal sëriñ bi mu gudd mu gàtt mooy rek feddali cofeel feddali kóllëre sa digganteeg sëriñ Abdoul Aziz ambassadeur bu Maroc dafa nekk ci vacances tukki waaye yebal na Oustaz Mahfouz ba ne moo xam ne lépp lu moo ko yor ci ambassade ba di ko jaxasoog Touba ci programme yu bëree bëree bëri ambassadeur Algérie aussi bi mu ñëw wax na ma ni bi fi mujjee am na lu ma wax na ma ne si Mountakha am na lu ci tàmbalee feeñ na lu ma juróom juróomi bourse may ko yoonu murit ngir doomu dëkk bi mën a dem àggale seen jàng foofa ONG Al Ataa nga xam ni ONG la boo xam ne dafa war nga ci réewu Qatar ak réewu Turquie am liggéey yu bëri xam ne koy def ci dëkk bi tàmbali ci yenn yenn ñu am am ci yenn defal la ko defal ko si Mountakha sa daara sa tool yi la ci mooré ak daara ji waaye ñu ngi liggéeyal fondation Soxna Bally ñetti juma ak ñaari phase tàmbali nañ ko yaakaar naa léegi mu yegg seen kilifa dafa ne bitim réew waaye yebal na fi délégation bu mag ñu ràññi ci Oustaz Hamza Mouhamed Moustapha Gueye Sidi Ahmed Ousmane Diatta ak sëñ Kunta nga xam ni doom na ci yow di njabootu sëñ Ndiassane jamaatu Ibadu Rahman teel nañ fee ñëw lool sëñ Cheikh Tidiane Fall moo nga ne toog ànd ak sëñ Ibrahima Sow mi nga xam ne mooy lépp jëm ci affaire partenariat ci jamaatu Ibadu sa xarit sëñ Modou Ngom sa xarit sa taalibe teew na fi sëñ Abdourahmane Kunta di porte parole bu xalif général de Ndiassane teew na fi tey bis bu xat la ci moom waaye dañu ma sëñ Bass mënta woote ma bañ teew ndax ni ñu demee man ak moom te moom it du teg du toog ñaari ay bis te woowu ma du yóbbante ay nuyoo ci yow ak ñaan ak cant sëriñ Ngagne Sarr Ngagne Demba Sarr di porte parole bu xalif général de Thiénaba ñëw ne fi ànd ak taawu sëñ Thiénaba sëñ Assane Seck di di sa xarit di am ku am ci yow sa xarit sëñ Modou Kara Mbacké nee na mi ngi ci yoon wi ñëw waaye yebal na fi njabootam Kara sécurité comme ni ko daan defee at mu jot di ñu ñëw jàppale si organisation bis bi ak yombal dugg génn bi alaaji ma dikke sekk di sa xarit sa soppe moom it ñëw na ak sëñ Sidil Maxtaar Kunta di xalifa Baye Sidy Lamine Kunta bu Njaasaan ànd ak xaritam di genn wàllam sëñ Modou Abdou Wadoud di lépp ci yow sëñ Cheikh Omar Kane bi jiite miroir de l'islam di sa goro ndax goro sëñ Moustapha Sy la mooy denc taaw sëñ Moustapha Sy waaye di ko jàmbaaree ci yoonu lislaam bi di koy liggéey liggéey bu am solo ci biir ak biti réew moom it ñëw na fi ànd ak bu am solo Sidi Ahmed si di doom ci sa soppe ba sëñ Abdou Aziz Al Amin ñëw na fi comme ni mu fi daan teewee at mu jot ànd ak sëñ Asan si ak imam Mbaye nga xam ne man imam Mbaye nga xam ne su man ak moom seq nañ lu bëri bëri ci rabitul xiril jaamiat wal maahid islamia ñoom it ñëw na fi ni ñu fi daan ñëwee barki démb la ma sëñ xalifa euh, la xam nga ne délégation bi dinañ ñëw te dañ teel a ñëw ñoom it teel nañ fee ñëw loolu ñu ngi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax bi loolu moo doon délégation yi. aleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatuhu. mbokk këri lislaam yi fi teew yëpp. mbokk bi ne bàyyiwul kenn. ku mu tudd ku mu tuddul. ndax sëriñ Ahmad jiitu na ko ci sëñ Moustapha Jatara jiitu na ko ci ci lim bi sëñ bi nee ñi ngi siyaar ñëpp ndax ku ci ne buñ sañoon jaar ci saw tur waaye ku ci ne nag agsi na ba ci yow saafonteeg yow ngeen xam ni ngeen xam ne kenn amu ci jot la si sëñ Abdoulahat Mbacke daa wax rek. nee la sëñ Abdoulahat Mbacke wuy juróom ba daan wax rek. fas ju lillaahi fi nekk rek moo leen kon. nee na kon. ñu leen di sant bu baax a baax. ñu leen di sant bu baax. di gërëm. sëñ bi leen di gërëm. tàmbalee ko ci ñi bàyyi ko Tiwaawan. nee mi ngi koy tàmbalee ñi bàyyi ko Tiwaawan. ci ndigalu suñu doom Serigne ci doomam jii di Serigne Sidi Ahmed si. moom ibnu Serigne Sidi sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin ak mboolem délégation bi mu àndal mi ngi nuyu waa Ndiassane nuyu ki yor kaddu gi di ko jottali nuyoo ci kilifa ga ba ci rakkam yi mu àndal yëpp mi ngi nuyu ñi bàyyi koo cene ba ci doomam yi mu ci yebal ak ki yor kaddoom mi ngi koy nuyu moom itam di ko sant bu baax xam naa ak cofeelam ci ñoom. di nuyu bi ne mi ngi nuyu waa Kaolack. waa Madina Baye. ak waa Léona. ak mboolem këri diine yëpp. ne mooy Ndiassane. njabootu Cheikh Omar Fouti ñëw nañ fi démb. ñaari délégation. ñaari délégation. mi ngi nuyu jamaatu Ibadu Rahman ak mboolem association islamique yi fi teew nga xam ne tudd nañ leen Cheikh Omar Kane mi nga xamante ne gorob sëñ bi ndax doomi sëñ Moustapha si mu Cheikh Ahmed Tidiane si la yor sëñ bi ne ñu ngi nuyu ñëpp. sëñ Sidi di la delloo sëñ bi mi lay delloo nuyoo bu baax. di ko tekki sa loxo. nga teg ko ci loxol mbokk yu baax yi fi teew. sëñ bi ne mi leen di xamal ni yëg na li ngeen def ndax xat na. nee na ñëpp sax dogoon na loon ngant. ndax xataayu jamono ji. yitte rek. ak wane cofeel. moo leen indi. kon ñu ngi feddali bu baax a baax. kóllëre gi dox sama digg ak yéen. dox si digganteem ak yéen. istajibu lillahi wa lirrasul moo leen indi. nee na li leen indi. mooy loolu. mooy loolu. kon. la Serigne Touba waxoon nee la Serigne Touba waxoon ne. innamal mu'minuna ixwatun. innamal mu'minuna ixwatun. mu ne ak tey la. ak tey la. inna shaytaan lakum aduwwun. inna seytaan lakum adu inna seytaan lakum anu ak nax la anuun ak nax la mu ne tey gi ci inaw noonu ixwatun nag ne tey gi ci innamal mu'minina nag nax gi ci inna seytaan lakum adu mënu ko yàq nax gi mënu ko yàq nee na nax gi mënu koo yàq di nuyu itam eh, ambassadeurs yi fi teew sëñ bi ne mi ngi yi fi teew ak yi fi seeni ndaw teew ak i fi seeni ndaw teew rawatina Algérie ak léew rawatina Algérie ak Maroc ak association Atta. Atta association Atta. Atta. nga xam ne mooy ñu ngi ay ci réew mi. sëñ bi ne ñi ngi fiy jëf jëf yu baax ci réew mi. nee mi ngi nuyu ñëpp. nee na sëñ Abdourahmane Kunta. nee na daaw yëkkati na fi ci màggal gi kàddu yu rafet. kàddu yu xóot. kàddu yu yoo xam ne mooy jotaay bii rek. kon Cheikh Sidi Ahmed. sa kàddu yi. ne yàkkamtiwuloon nga jeexal. nee na da koo fàttali sa waajur wa. Cheikh Abdou Aziz. nee na li nga wax rek. nee na li ko yàlla booleeg moom. nee na néew na boole gu demee noona. ci cofeel gu mu am ci sëriñ bi. ëmbal ko ko. dama daa wax ne. mais da daan wax sëñ sëñ Basiru ne ko. Basiru li tax ma yérëm la. ne ko sëñ Basiru li tax ma yërëm la. da yor yenu mag. da yor yenu mag. te yor ati ndaw. te yor ati ndaw. waaye nag. waaye daal ne ko waaye nag. samaam mi la ko yen. mi la ko yen. du la seetaan. du la seetaan. waxaatit ma ne ma. waxaat sëñ bi ne ko. li tax ma fonk la. ne li tax ma fonk la. nan la ma ko daa li tax ma fonk la. mooy dangaa fonk li nga yor. ne ko dangaa fonk li nga yor. dangaa fonk sa maam. dangaa fonk sa maam. dangaa fonk li nga dénk. dangaa fonk liñ la dénk. te nit te nit. ci loolu lañ koy nawee. ci loolu yi lañ koy nawee. loolu la ma daan jëkk wax. bi nee na loolu la ko daan jëkk wax. yàlla defit. yàlla defit. mën naa koo seere. moom mii mën na koo seere. ñu xam nañ ci dara. ñu bari xam nañ ci dara. naka jekk këri diine yi naka jekk këri diine yi benn lañ. waaye yàlla def na nag. waaye yàlla def na. bi ko suñu borom dajaleeg sëriñ bi. sëñ Abdou Aziz. ci la mel nii nag. nee ci la mel nii nag. ba nekk gis un. ba nekk gis un. gis un laayata jasa. gis un laayata jasa. ci suñu diggante ñoom ñaar seen diggante ñoom ñaar. la am la am. maa ngi fàttaliku. maa ngi fàttaliku sëñ bi nee mi ngi fàttaliku. 2012. 2012. ba élection yi bëgg a jub si. ba élection yi bëgg a jub si. sëñ Xalifa Lo damaa wax ne ma Serigne Beye la soxla. sëñ Xalifa Lo da ko woon ne ko Serigne Beye la soxla. waxtaan. waxtaan. ma ne ko maa ngi Dakar waaye mën na maa ñëw. nee na mu ne ko maa ngi Dakar waaye mën na maa ñëw. nee mu ne ko déedéet. bàyyil bu ma sëlmalee gee. nee bàyyil bu ma sëlmalee gee. ci jàkka ji. ñëw fekk si la sa kër. ñëw fekk si sa kër. ndax xam nga ne. ndax xam nga ni. waxuma la responsabilité booba. waxuma la responsabilité booba. waaye booba fa mu toll ci at. waaye booba fa ci at. jóg jafe na ko. ko de. mu déplacé wu ñëw Dakar. nee mu déplacé wu ñëw dakaar sama kër. ci kër sëriñ bi. xaaju guddi. xaaju guddi. ñu waxtaan waxtaan wu yaatu. ñu waxtaan ñoom ñaar waxtaan yaatu. waxtaan woo xam ne. waxtaan woo xam ni. du waxi rajo. du rajo de. waaye lu bari xewe na ca. waaye lu bari xewe na ca. noonu la noonu lañ ko daan defee. nee noonu lañ ko daan defee. maa ngi fàttaliku ndeysaan. sëñ bi nee mi ngi fàttaliku ndeysaan. ci xërëm ci xërëm. bi sama wajuram wu jigéen noppaloo. wu jigéen noppaloo. ci saal bii la toog. waxtaan fi lu yàgg. jóge fa xaw a sonn. jóge fa xaw a sonn. jaar sama jaar këram. sama kër gi ci héliport. jaar ci kër gi ci héliport. mooy fi leen war a dalal. mooy fi leen war a dalal yi. ba mu demee. rek. daa wax ne daanaka mën naa far fanaan ndax sama kër laa ne. daa wax ne mën naa far fanaan ndax sama kër laa ne. fa la nekk keroog ba trois heures ci guddi. noonu la doon sëñ bi ne noonu la doon dundee moom. am na ko wàññi ko woon ay njabootam. ne am na ko wàññi ko woon ci njabootam. Cheikh Sidi Moukhtar. Cheikh Sidi Moukhtar. yàlla na sunu borom dolli leeram. yabal ko fi. mu ànd ak délégation bu mag. bu mag. keroog mu woote ci biir këram. keroog mu woote ci biir këram. ñëpp a ngi toog. toog. mu ne tey jii mu ne tey jii de. am naa mbégte moo xam ne. am naa mbégte moo xam ne. ni ma ko mën a firndeele. ni ma ko mën a firndeele. bu rey nit dagal noonu. bu rey nit dagal noonu. ku sant si laay rey. ku sant si oh. ngi dégg nag. kon kooki fa mu tegoon sëriñ bi. yàlla rek ko xam. yàlla rek ko xam. lu lu mbir mu mës a agsi it. nee mbir mu mës a agsi it. maa ngi fàttaliku ndaje ñaari ndaje. sëñ baa ngi fàttaliku ñaari ndaje. boo xam ne benn bi Abdoulaye Wade moo ko woote woon. boo xam ne benn président Wade da ko woote woon. bi ci des président Macky moo ko woote. bi ci des président Macky Sall ko woote woon. nee na lu muy wax ne moom rek da koy seere. xalifa la woo jox ma sëriñ bi. ne xalifa woo ko jox ko sëriñ bi. mu ne man kat dañ maa woo jox ma carte. ne ci daje ne ko dañ maa woo jox jox ma carte ci daje sangam ma ne naa la laaj. ma ne naa la laaj. bu fekkee da nga dem. bu fekkee da ngay dem. ma dem ma dem. bu fekkee doo dem bu fekkee doo dem. ma yónnee ma yónnee. oh fekk ma am gant. fekk man ma am gant. ne bu ci ne moom mi mu am gant. waaye ba mu amee gant moom daa fomm bosom te. kon loolu. kon loolu yi. ak cofeel mënu ko weesu. ak mënu ko weesu. bari na lool itam. bari na lool itam. léeg-léeg ma dajeeg nit sëñ bi dajeeg nit. muy nit ku baax. muy nit ku baax. wala borom alal. wala borom alal. mu ne wéet naag sëñ Abdou ci biir néegam. nee mu ne wéet naag sëñ Abdou ca biir néegam. mu ne mbaa yaa ngi siyaare ji sëñ la mbaa yaa ngi siyaare ji sëñ Basiru. mu ne ko mbaa yéen a ngi koy defal ak dog di koy defal sax ak dog di ko ñaanal. te du ko ko waxaat moom mi bari na ñu ñëw fi jàpp ko te jëmmoo tax. sëñ bi ne bari na ñu ñëw jàpp ko te jëmmi sëñ doo tax. kon. kóllëre googu. kóllëre googu. mënuma lu may sàmm ko ci yéen. sëñ bi mënu lu dul sàmm ko ci yen yéen nag sàmm ngeen ko bu baax ngeen ko bu baax. kon ñu sëñ bu baax. sëñ Babacar si sëñ bi nee na mi ngi koy nuyu bu baax. nee na xam naa cër ma séddee. nee na na sëñ bi cër bi mu ko séddee. cër bi ma séddee. cër bi mu ko séddee. ak ni ma jàppee. ak ni mu ko jàppee. ak ni mu ma fonkee. ak ni mu fonkee sëriñ bi. ngir way juróom. ngir way juróom. ndax ku fonk way juróom la. waaye cër boobu rek la ma waaye cër boobu rek la ko jox. sant bu baax. sëñ bi nee ñu ngi koy sant bu baax. ci xalaatam yu rafet. ci xalaatam yu rafet. ndax na way juróom daan xalaate rek. ndax na way juróom daan xalaate rek. noonu lay xalaate. sëñ bi ne mi ngi nuy nuyu sëñ Moustapha. mi jëwrinam. di ko sant. di ko sant. gërëm ci taxawaayam. di ko gërëm ci taxawaayam. yàlla du juum. ndax yàlla du juum. te fu mu def barke. fu mu def barke. na ko Rasulullahi waxee rek. na ko Rasulullahi waxee rek. suñu borom ruus na wàcce fenn barke. suñu borom ruus na wàcce fenn barke. di ko dindiwaat. kon yëg nañ taxawaayam ci biir kër ga. kon yëg nañ taxawaayam ci biir kër ga. ak njaboot ga. te ñëpp la ci yóbbaale. te ñëpp la ci yóbbaale. yow si jëm yow itam. yow mii sam sëriñ bi. yàlla def ngay xamsatul wasli mi. def ngay xamsatul wasli mi. ndax sëñ Abdou. ndax sëñ Abdou. yow rek la fi mas di yónni. yow rek la fi mas moo tax ñoom ñu déggoo ci wéyal loolu. moo tax ñoom ñu déggoo wéyal loolu. am na ci bis boo xam ne fekk na la ci lu xat. sëñ bi ne am na bis boo xam ne fekk na ko ci lu waaye dana la njëkk fi ba noppi. ba mu seen la ba noppi nga dem ci conférence bi. kon loolu yi. yëg nañ ko. sëñ bi ne ñu ngi leen di sant bu baax di jokk bokk gi. di ko fas sàmm. di sant nag suñu bokk yu tedd yi. mi ngi sant bokkam yu tedd yi fi toog. ndax day jotaayu mbégte. day jotaayu mbégte. di bisub sant. di bisub sant. ko fekkee ñoom ñaar ñii. buñ ko fekkee ñoom ñaar ñii. day day dalal sëñ bi ne day dalal xelam. day rafetal sama njort. day rafetal njortam. ndax lii sëñ Abdou Khadir lañ ndax lii sëñ Abdou lañ koy wooteel. di ko li di ci liggéeyal Serigne Touba. nee bu sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ñëwee. di jàmbaar lool. di jàmbaar muy sëñ Falloum sëñ Modou Aminta mii. nga xam ne ci tabaski gi rek. nga xam ne ci tabaski gi rek. li mu joxe ëpp na ñetti téeméeri xar. li joxe ëpp na ñetti téeméeri xar. booleeg lu ëpp téeméeri million. booleeg lu million. te ña nga liggéey ba nii ca Mbacke. te ña ca liggéey ba ca Mbacke. daara jëleen sëriñ bi di tabaxloo. daara jëleen sëriñ bi di tabaxloo. fa la jógee demaat fa. fa la jógee kon ñoom noppaluwun. kon ñoom ñi guddeeg bëccëg. guddeeg bëccëg. ñu ngi sonn ñu ngi sonn. ngir seen maam. ngir seen maam. kon bu ñu fekkee jotaay bi. kon bu fekkee jotaay bi. jotaayu seere la. sëñ Sidi mii. sëñ Sidi Naar jenn mii. yaakaar naa ku ko gisut tam. ku ko gisut tam yaakaar na ni. dégg nga taxawaayam sëñ bi ne dégg nga taxawaayam. salle de conférence bu mag bii ci kër sëñ Touba. salle bii ci kër sëñ Touba. bi ko Cheikh Sidi Moukhtar xalaatee. bi ko Cheikh Sidi Moukhtar xalaatee. yónni ma ci moom. yónni ko ci sëriñ bi. na wax ni mu ko bëggee mu ne mu ne seex ne Cheikh Bassirou na sëñ Sidi Muxtaar wax ni mu ko bëggee rek. na jox plan bi ni ko bëggee rek. na joxe plan bi ni mu ko bëggee rek. maa defar plan bi. sëñ bee defar plan bi. dem ba këram jox ko dem ba këram jox ko ko. moo ko tabax ba jébbal ko caabi moo ko tabax ba jébbal ko caabi yi. jox ko Cheikh Mouhamadou Mountakha. jox ko Cheikh taxa Mountakha. sëñ Mountakha ko ubbil boppam. nii sëñ Fallou def ci tabaski. nii sëñ Fallou def ci tabaski it. yaakaar ñëpp gis nañ ko. moom it ku ne gis na ko. lam joxe mat na loolu. lam joxe mat na loolu. kon ñoom ay jàmbaar lañ. kon ñoom ay jàmbaar lañ. te boo ci seen këri bopp waaye boo demee te te boo demee ca seen këri bopp ya. da nga naan dëkkuñu fii. da nga naan dëkkuñu fii. ndax dëddu àdduna. kon dañuy ay jàmbaar yoo xam ni kenn jàmbaar ci biir yoon wi. kenn jiituwu leen jàmbaar ci biir yoon wi. kon bu ngeen fekkee jotaay bi. day mel ni mubaarakul ibtidaa yi. day mel ni mubaarakul ibtidaa yi. may mun a intaay wasalaamu aleykum wa rahmatullah